ci booy xool recommandation générale mooy mu gën a am waxtaan entre ñi seet langue politique bi parce que ren ji li ñu seetlu mooy li jëm ci processus électoral bi yëpp nguur gi da ko def sans l'opposition amul déggoo ci dara loolu bokk na loo xam ne lu ñu war a éviter la donc recommandation bi jëkk mooy bu ñu paree ci élection yi rek mu am ay euh, waxtaan yoo xam te ne day mën a indi consensus ci li nga xam ne mooy jëm ci euh, élection yi beneen bi mooy lu jëm ci wàllum financement parti politique waxtaan nañ ci jàpp nañ ne war nañ xalaat ni ñu koy mën a nekkalee ba nga xamante ne dina am équité entre les candidats lu jëm ci dépense yi jëm ci élection yi aussi si maanaam campagne électorale bi nekk na lu ñu war mën a am loi bu koy réglementer ba nga xamante ne tamit day indi équité ci wàllu boobu alors lu jëm ci wàllu sécurité maanaam euh, euh, sécurité candidat yi aussi jàpp nañ ne war na mën a am loi bu koy tëkk ba nga xamante ni saa yu ñuy dem élection candidat yi dañuy nekk ci sécurité te bu candidat yi nekk ci sécurité mën na wàññi fitna ci campagne électorale jàpp nañ ne aussi war na toll foo xamante ni war nañ mën a restaurer waat dialogue bi maanaam indiwaat waxtaan entre ñi seq wàllu politique bi ba mun a am ku ñuy désigner mu nekk njiitu opposition bi et nommer benn autorité boo xamante ne mooy jore lépp lu jëm ci démocratie ak ci lu ñuy wax euh, euh, dialogue politique ak ak élection jàpp nañ ne toll nañ foo xam ne fi mu toll nii war nañ mën a am autorité bu mën a waxtaane dajale nit ñi boo xam ne day nekk autorité boo xam ne dina dañ koy nommer mu gérer lépp lu jëm ci élection lépp jëm ci dialogue politique ak lépp lu jëm ci financement parti politique donc recommandation yi mooy recommandation générale yi boo jëlee recommandation yi par acteur li nga xam ne ñu ngi koy recommander l'état maanaam nguur bi mooy mu def ay réformes yoo xamante ni ñu ko ci ànd surtout ci wàllum parrainage parce que parrainage ba léegi amagul déggoo jot na nguur gi tijjiwaat loi bi nga xam ne mooy jëm ci parenage bi waxtaane ko waaye wujj bi pour que ñu am ko ay euh, consensus maanaam ay affort pour que bu ñuy dem si élection locale yi mu nekk élection yoo xamante ni dina am le minimum de déggoo mettre en place benn dispositif boo xam ne bu ñuy dem parrainage dispositif informatique la boo xamante ne day tax doublon du mun a am ndax doublon yi dafa indi euh, manque d'équité ci candidat yi parce que ku la jëkk euh, parrainé même bu fekkee jëkku la déposé mais keneen pare na ko ki njëkk a déposé moom la ñuy considéré bosom jàpp nañ loolu mun nañ ko éviter bu ñu amoon benn euh, ci way xarale yu bees yi benn dispositif boo xam ne kuy dugal say parrainage di nga mën a xam ndax ki nga dugal dugal nañ ko ba pare dina tax du am ay doublon nga xamante ne aussi conseil constitutionnel defoon na ko muy ob euh, nangu ay observateur ñu teew ci bu ñuy def euh, contrôle parrainage ñu nekk def ko loo xam ne day wéy bu ñu jógee ci conseil constitutionnel bu ñuy dem maintenant ci élection locale yi ñu mun ko def ci euh, ci au niveau local pour que mu am ay observateurs indépendants ñuy pare parrainage jàpp nañ ne bu ñuy def contrôle parrainage bi war nañ ci boole Sénat ren bu ñuy def contrôle Sénat parrainage bi Sénat amu fa woon place te doon na baax ñu boole ci waa sena baax na aussi ci recommandation yi nga xam ne def nañ ko état que bu ñuy tegati logiciel buy ñuy contrôler parrainage yi ñu waxtaanee ko ak mujj euh, bi bi ba ñu am kujj gi xam lan mooy lu paramètre bi nga xam ne moom la ñu paramétré euh, logiciel bi saytu euh, parrainage wax nañ ne aussi ñi nga xamante ne ñoo am way laago ak jigéen ñi nu ñuy defee ba seen présence ci élection yi gën a yokk loolu itam bokk na recommandation boo xam ne wax na nguur gi war na ko xool ba nga xam ne waaye ñu am way laagu ak ñi nga xam ne ay jigéen lañ seen présence dina yokk ci euh, organisation élection yi leneen li aussi mooy gën a yokk sensibilisation électeurs yi ci nan la ñuy voté fan la ñuy retiré carte parce que gis nañu ne tey jii euh, bulletin nul yi bari na bari yoo bari woo xam ne jéggi na daayoo parce que y' a plus de quarante mille bulletins yoo xam ne valable te loolu ñàkk euh, xam ni ñuy voté moo ko donc war nañ yokk effort yi jëm ci sensibilisation électeurs yi alors carte électeurs yi ñëpp gis coow li ci am ci distribution bi war nañ mën a réfléchir loolu la nguur la ñuy def recommandation nguur mu réfléchir ak acteurs yi ni ñuy simplifier distribution carte électeurs ba nga xam ne bu ñuy demati ci élection du nekk coow ci fichier bi du nekk coow ci distribution bi kii naan jot naa sama carte kii naan jotuma sama carte li nga xam ne moom la def recommandation beneen bi moo jëm ci Sénat Sénat dañu jàpp ne li ko nguur may yëpp li ko yoon may yëpp jël ko ci ay pouvoir donc jàpp nañ ne Sénat jot na mu jël li nga xamante ne moom la ko yoon may yëpp ci wàllum élection mu jëfandikoo ndax Sénat ni mu war a taxawee ci élection yi taxaweewu ni ni ñu mel te donc te nguur may na ko yoon may na ko ay prérogatives yu bëri yoo xam ne jàpp nañ ne jëlu ko pour euh, jàpp jariñoo ko CNRA recommandation bi ñu koy def mooy mu gën a saytu coow yi am ci média yi ndaxte gis nañ ren coow li mu indi yëpp ensuite ak traitement bu gën a équitable bu mën a gën a tëggee day gisee média yi ensuite gis nañ ren amul débat entre les candidats te loolu sénéral am na ci euh, responsabilité ba tax na war nañ mën a xoolaat mu ñuy soppee loi bi ba nga xam ne débat entre les candidats mun nañ ko def même bu fekkee ne CNRA organisé wu ko mais ñu ut ci solution ba nga xam ne ku bëgg a organiser débat entre les candidats CNRA du la euh, indil jafe-jafe. recommandation bi ñuy def société civile mooy mu gën a yokk seen taxawaay entre ñoom ñu yokk seen taxawaay entre ñoom voilà seen. seen jokkoo maanaam seen synergie maanaam ñu gën a jokkalante ci seen liggéey euh, gën a yokk aussi sensibilisation bi nga xam ne ñu ngi koy def ñoom ci wàllum euh, information boo pare médiation bi ñu gën a xool ay yoon ak ay pexe yu koy gën a rendre efficace acteurs politiques yi li leen di recommander te foofu lay mujjee mooy ñu nangu waxtaan li nga xam ne moo jëm ci wàllu euh, code électoral ak réforme pour mu am ci déggoo loolu bokk na ci recommandation bi gën a foot bu ñuy def ci euh, euh, parti politique yi ensuite yokk taxawaayu parti politique yi ci commission yi nga xam ne moom la ñuy euh, inspirer électeurs yi ak fi ñuy defee distribution carte électeurs yi alors ci médias yi médias yi li leen di recommander mooy ñu gën a ñoŋal eh bien respect bi jëm ci wàll éthique ak déontologie ngir gën a yabale candidat yi ci seen liggéey et gën a yokk aussi seen capacité maanaam gën leen tàggat ci lu jëm ci mbirum élection enfin muy conclusion bi mooy li ñu mën a jàpp mooy élection yi nga xam ne am na 24 février 2019 euh, rafetlu nañ ni mu tëddee ni mu doxee ndaxte jaar na ci yoon jaar na ci jàmm def nañ def nañ ko ci jàmm ak salaam sénégalais yi ñu ciy profité di aussi saluer seen de seen en seen dal ak seen li ñuy génn en masse dem vote ji donc loolu bokk na ci li nga xamante ne ñu ngi koy rafetlu ci ni sénégalais yi taxawee ci élection yi mission bi aussi mu ngi euh, mu ngi au acteur politique ginnaaw bu ñuy jógee ci élection yi ñu nangu toog waxtaanee li nga xam te mooy njariñ réew mi ba mu am ay consensus et donc loolu mooy li nga xam ne mën nañ ko jàpp ci tënk. nous avons couvert rien que notre mission a couvert cent cinq. Euh, nous avons déployé mille cent cinq observateurs qui ont couvert dix mille sur les quatorze mille et des poussières.

Ce qui fait que nous, dans l'ensemble, nous avons couvert la plupart des bureaux de vote. Alors, quelle est notre réaction En tant que républicains, nous ne pouvons que euh, dire que euh, nous, nous, souhaitons, en tout cas, nous souhaitons que euh, euh, tout le monde euh, euh, sache raison garder et que les, ceux qui veulent contester l'élection présidentielle utilisent les voies de droit euh, pour euh, contester l'élection euh, présidentielle. est-ce que nos résultats sont conformes avec ceux donnés par le juge Carnot Tout ce que nous pouvons dire, c'est que le juge Kandi est à la tête de la Commission nationale de recensement de ces élections. Et les chiffres qu'il donne sont les chiffres officiels. En tant que républicain, nous prenons acte de ces chiffres-là et nous ne les contestons pas.